merci beaucoup madame la présidente ma sœur Sira maa ngi lay féliciter di nuyu monsieur le ministre ak collaborateur am yi mu àndal yëpp monsieur le ministre euh, RTS ak euh, organe de presse bii la Soleil askan wi ñoo ko moom wante nag askan wi dañ cee desee gis seen bopp ndax jafe-jafe yi nga xamante ne si ne moom la askan wi di dund dañ koy cof manifestation yi di am xale yi ñu leen di tiire ay bar réel ak jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci inondation yi nga xam ne da ngay gis nit ñi ñuy xuus ci ndox yi di jàll ak di tiim ndox yi di lekk loolu du ko wane comme que nag askan wee ko moom ba ci budget bii nga xamante ne si ne moo leen fi bàyyi ñu war leen ko voteel askan wee moom mu jóge ci askan wi ñu war ko delloo ci askan wi kon tamit def leen de telle sorte que ñoom tamit askan wi mën ci gis seen bopp li nga xamante ne si ne mooy euh, Sénégal aussi dañ fi noté communication à double vitesse boo bokkee ci état bi lu la neex wax da ngay gis ci tele yi ay nit yoo xam ne dañuy toog saaga président suñ ko wax ko lu ko neex te du mujj fenn par contre nag boo bokkee ci opposition bi doo wax doo sëqat loolu tamit yaakaar naa ne lu ñu war a xoolaat la teguñu ko fenn kay euh, monsieur le ministre liberté d'expression ak liberté presse euh, ak liberté de presse tamit dafa am solo cim réew te gis nañ journaliste yoo xam ne tamit dañ fi nekkal askan wi di saytu jafe-jafey askan wi di ko wax mais mayu ñu leen jàmm mayu ñu leen salaam ku ci mel ne Pape Alé Niang du wax du sëqat à chaque fois ñu ngi koy arrêté di ko malmené mu sonn ba bëgg a dee en collaboration avec le ministre de la justice kon ñu ngi sàkku problème bi nga réglé ko Euh, monsieur le ministre bala nga ne naam nag ne fa ñun ay député la ñu ngi fii ci assemblée bi wante boo xoolee condition yi ñuy liggéey dafa xaw a doy waar ndax communication ñaar ñoo koy séq émetteur bi day wax récepteur bi di ko déglu message bi dafa ko dew léegi dañ ko war a décoder te li ñuy permettre ñu comprendre message bi di ko jàllale mooy appareil yi te doxul man sànq euh, na bi muy wax xam naa ne li muy wax c'est tellement intéressant mais xaw ma lu muy wax monsieur le ministre monsieur le ministre euh, yaakaar naa ne avec l' avancée des TIC tamit fii ci assemblée bi war nañ changer modèle vote bi war nañ dépasser euh, vote euh, par à main wala vote par urne war nga ñu jàppale ba fii ñu am fi appareil yoo xam ne moo ñuy permettre ñuy def vote électronique parce que nag fii ñu toll ni dañ ko war a romb kon loolu tamit ñu ngi la ciy solicité nga jàppale ñu ndax ñu mën a liggéey ci meilleures conditions yi je vous remercie. merci beaucoup honorable la parole est à l'honorable Serigne Abo Mbacké Thiam pour quatre minutes et l'honorable président Abbas Fall se prépare.